jërë ngeen jëf coordonnateur du parti démocratique sénégalais di Omar Sarr démb sandarma yu Colobane moom Omar Sarr moo nekkoon seen gan yéen bi di observateur xëy ci dellu siwaat xëy ñu xamale moom Omar Sarr daje na ak gendarme yi ba tey observateur nañu ca boobi la gisee seen digg ak gendarme yi moom Omar Sarr daje ba weesuwu juróomi minute leneen loolu journal wax nañu ko moo di lan moo ko fa yóbbu woon yéen bi ñu en tout cas li mu populaire euh, xëy ñu xamal leneen lu am ci ba mu jeex tàkk la doon nuroo ci gàttal daal gars def nañu ko taf taf ñu lijjanti ko ba jël coffre rek la ca nekkoon daal di koy yóbbu le quotidien xëy ñu xamal ne ay dañ jong ak li nga xam ne loolu la amee nay takkaay jamono ji moo nga ñuy wéer ci ab lukk lam fa bëgg wax moom journal bi mooy njëg njëgu takkaay ci boppam la bëgg a xam direct info moom it xamal ne euh, ay yi nga xam ne amoon na ko ca coffre ya la muy bañ moo di teg Abdoulaye Wade fitna ndax ci ni ko Le Quotidien waxee mooy njiit réew mi Macky Sall bëggut a gis Karim Wade euh, nga na xalaatam ci réew mi euh, histoire bi fi amoon di benn waay boo xamante ji dañ na ko na choisir papa ma waxoon ne ko boo wàccu sa sa jabar ji damay xaru loolee ñu naan euh, histoire euh, cornélien euh, ki nga xamante ni mooy daaw dafay vawa nee na Macky Sall ci fitna jooju lay dund jamono ji Walf Fadjri moom xëy dikk ñun ci meneen mbir moo di jubóo gi Macky Sall dund ak Alioune Badara Cissé jubóo gi nga xamante ne ji moom la ñuy wax yéen kaay bi dañu am na leneen lu ko lal loolee lan la Walf Fadjri dem na ca ba jeex gën koo leeral ma leerali li nekk ci xëy ko Sud Quotidien ma ko ñu ànd ci ak téléspectateurs yi Sud dikk ci lu aju ci code des marchés ak ñu koy doxalee yéen kaay bi dañu am na ca charte xamante ne ji bu ñu ko càmbaree ba càmbar la muy firndeel mooy ñu ci bëree bëree bëri bëri fi mu nekk nii kenn mënutoon leen a contrôler dañu maanaam dañu échappé ci contrôle yi échappe bu euh, noo xamante ne ji ci gàttal daal la ñu naan yëf yi leerul boo moytuwul wute wut loolee moo ci am li am ci observateur yamu rek ci li ñu njëkkee woon bokk na ci wàllu politique ba tey akkan Baara Gaye Baara Gaye mi nga xam ne mu jiite woon UGTL la te ñu jëlee ko fa teg fa Toussaint Manga yéen kaay bi nañu Baara Gaye moomee na ko gars yi bàyyi xel ndax mi ngi fas yéene taxawal benn courant ci biir parti démocratique sénégalais maa ngi koy a lijjanti maa ngi koy taxawal ca topp lu mu fukki jeune yoo xamante ne ji ànd nañu ak moom Baara Gaye yéen ànd leen ak man ci sunu làmb ñu xooli lan combat Modou ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ba léegi ña nga cay wax yéen bi tey ka mu jox kàddu ga moo di Birahim Ndiaye nee na lan moo tax ki nga xam ne moo di euh, Modou Lo euh, Eumeu Sène mënutu woon ko yëkk mënutoon ko daan ba mu ko yëkkatee nee na bu doon Balla Gaye daanu na bu yàgg te it yamul foofee de moom Birahim Ndiaye jàngat na combat bi ak it lu aju ci li nga xamante ne ji moom mooy euh, ni muy waxee que Modou Lo nee na bi ñuy waajal combat bi ba combat bi desee as néew amul benn conseil boo xam ne jox na ko ko da ko bàyyi rek mu dem ak xelum boppam ñu dem ci populaire xooli fa leneen loo xam ne lu day waar la di xew-xewu jamono kii benn xale bu jigéen la bu toll ci ñeenti at dañoo yegg ci kawam xale bu jigéen bi nag ci àtte ba ca layo ba ba muy nit li ni ko waa ji def waa nee na jibi la tudd xale bu jigéen bi nee na jibi da koo jox mburu ba noppi daal di koy summi jibi def na lopp de bu suba ak